yay muxtaaru musaay muxtaaru giiru giir ñi laay woy sangu makkaak madina seydina muhammad yay muxtaaru yay muxtaaru oo yonent bi yow dong yaay muxtaaru yow lañu tànn ngay muxtaar sayidina muhammad bu du woon moom ay bu dul woon ak sayidina muhammad duñu lekk duñu naan kenn duñu xam lépp moo ko waral mustawa xif wastami zikra man anwaar woo lamaat في الكائنات كالشمس في سماء طلعان وسقي لمدق النبي جل خالقه كند رسول الله وسقي لمدق النبي جل خالقه كند مصطفى لولا ما بدون موم لولا ما بدون سيدنا محمد duñu lekk duñu naan kenn duñu xam taraawuma kaanal mulku laay muntaziman moom sayidina muhammad nabi moo waral ñu sàkk duniya wa quraab bi kullul qadif tuddihat moom yonent bi xat kaana nuuran wala lawxun wala qalamun wala samaaun bi ilaa waqat sataat moom sayidina muhammad nabi rekk mooy muhammadun ashraful ahraabi wal ajami moom yonent bi rekk mooy muhammadun xayru man yamshi ala qaddami yonent bi rekk mooy muhammadun baasitul maxruqi jaamiuhu moom seydina muhammad moom rekk mooy muhammadun saaxibul ixsaani walkarami moom yonent bi rekk mooy muhammadun taaju ruslillahi qaatibatan musaa moom rekk mooy muhammadun saadiqul aqwaali walkalami moom yonent bi rekk mooy muhammadun saabitul misaaqi xaafizo yonent bi rekk mooy muhammadun tayyibul axlaaqi wa chiyami sayidina muhammad moom nabi rekk mooy muhammadun xubiyat bi nuuri zinnatuha moom yonent bi mooy muhammadun lam yazal nuuran min alxidmi yonent bi rekk mooy muhammadun xaakimun bilxadli zu sharafi moom seydina muhammad moom rekk mooy muhammadun mahdinu inaami walxikami moom yonent bi moom rekk mooy muhammadun xayrul xalqulaahi min mudarin Mustafa sama turandoo rekk mooy Muhammadun xayru rusulillaahi kulli mi moom yonent bi rekk mooy Muhammadun diinu xaqun nuziru bihi moom yonent bi danan ko waaye Muhammadun mujmilan moom seydina muhammad nabi rekk mooy muhammadun zikru li an qussina musaa anan koy muhammadun shakruhu ala ummami moom yonent bi mooy muhammadun zinnatun dunya wa bahjatuha yonent bi rekk mooy muhammadun kaashiful amaai wa zullami moom yonent bi mooy muhammadun sayidul taabat manaqibuhoo sama turandoo rekk mooy muhammadun saahu rahmaanu binniami moom yonent bi moom rekk mooy muhammadun سقوت باري وقيرته moom Seydina Muhammad nabi rekk mooy Muhammadun taahirul balsaati tuhami moom rasulallah yonent bi rekk mooy Muhammadun daaxikum li dayxi mukramatan ay yonent bi sama turandoo rekk mooy muhammadun jaarahu wallahi lam yuddami moom yonent bi nabi rekk mooy muhammadun taabitul dunya bi yaxsatihi musa nabi rekk mooy muhammadun jaa billayaati walxikami moom sayidina muhammad eenti bi mooy Muhammadun Muhammadun yowmal baxsi naami shaafi'una ay yonent bi moom min zulami moom yonent lati zuhamin yonent bi rekk mooy rusli kulli mi allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma wassalaamun jàmm wassalaamun mucc wassalaamun wér wassalaamun fi dunya wal axira wassalaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin